jóg takkati jóg di sarsarala naan fes mes mentañ nan mëy ci leeri maam maam lamp àjjana faal gur yàlla yi doom fa yàlla moo leen di siyaar de di leen cuujoo cuuraayoo nag naan di tàmbale ci maam rek tey yam ci maam du dund maam maam yàlla maam bamba maam seera faal point